flashka di phénomène boo xamante ni jamono ji bari na ci biir école yi loolee ñu ngi ko jëlee ci benn série boo xamante ni dañ koy teg ci tele yi mu mel ni nag lañ ca jublu rek mooy di divulguer wala sax di génnee secret ñi nga xamante ni ñooy dongo daara yi te ku góor wala ku jigéen ki nga xamante ni mooy nekk ci ginnaaw di jëf-jëf yu ñaaw ji kenn mënul xam kan la mu nekk nag foo boo xamante ni mu ngi lëmbee école yi jamono ji lii nag moo waral équipe leeral point daal di wàcc dékk suñu micro ñi nga ñaax leen ci. loolu de moom mi ngi commencé dégg naa ko daal mais gisaguma ko mais loolu moom du lu rafet ndax euh, je pense que waxuma sax ay xale mais ay nit bu ñu nekkee euh, am na yoo xam ne daal vraiment def ko rafetul daal parce que secret daal waruñu ko di di tas noonu moom daal loolu daal rafetul lu ñaawlu daal vraiment vraiment loolu moom vraiment man maa ngi koy ñaawlu te it euh, képp kuy jullit wala képp kuy parent d'élève aussi war nga ko ñaawlu. parce que on sait suba xale yi lu ñuy doon mën nga fee doon dara ëllëg mm, te internet bi dafa doy waar donc euh, ñu génneel la ko fii mu yàq sa àdduna daal waaw loolu daal vraiment maa ngi koy ñaawlu rafetul. tout d'abord loolu dama koy ñaawlu parce que xale yi dañ tàmm euh, xam nga di imiter nekk ndaw taxul boo imiter nga imiter lu baax mais di jël ay secret jàmbur yoo xamante ni dafa ñëw confier la ko nga divulguer ko loolu rafetul ndax yow mi koy def ku la ko defoon tamit du la neex. waaw te xale yi dañu am tendance xam naa ne foogu jeunesse la rek buñ dem xamuñu sax enjeu bi ci nekk peut-être mais xanaa école yi di leen gën a conscientiser ci loolu wax leen ni du lu baax daal nit ki euh, dafa am loo xamante ne moo ko moomal boppam léegi danga ko ko war a préserver loolu moo gën a rafet mais di tasaare ay secret jàmbur xam nga ku ci warut a jot jot ci loolu daal du lu rafet. waaw loolu day ginnaaw ay xale ñoo koy def loolu warul bi ko ñaareel mooy. mag ñi nga xam ni ñoom ñoo meññi xale yi ñoo leen war a woo di waxtaan ak ñoom ndax sutura jàmbur kenn du ko xawee ndax sunu borom moom innahu yaxlamul jahra wa ma yaxfa yàlla moo bind tey li nëbbu ak li feeñ sunu borom rek moo ko xam te yaakaar naa bu leeraloon jëfi nit ñi kenn ku nekk li nekk ci yow mu leeral ko ah kon adduna ñu bari dana rus te yàlla mi bind ñëpp kenn ku ne danaa nëbbal sa sutura li rafet ci yow mu wone ko li nga xam ne si da nga ko def mu ngi ciy teg bëtam di ko gis ndax yàlla moo xam lépp. moom mooy def ci nit lu ko soob kon nag gannaaw moom moo nëbbal jaam ñi seen sutura ba xawiwul seen sutura ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy ay kilifa nag kenn ku nekk yow war ngaa wax ci lii ndax lii lu am importance la sutura si nit kenn du ko xawee loolu daal laa bëgg ñu maase xam ci ni ndax bu dee xale la am na ñaari waajur ndox koo gis rek am na yaay am na baay bu amee am nay mbokk ñooñu ñoo ko war a woo waxtaan ak moom pour ndax def lu baax nag boo ko xasee def ka def loola ndax sëñ Fallou Mbacke nee na woon nañuy wax lu baax li ak di sant nit ñi ngir nit ñi bàyyi yu bon yi loolu mooy seen ay waajuram buñ ko wooyee yedd ko fat ko ci nekk ay mbokkam te ñu tere ko loolu dana ko bàyyi ba pare ko ko nar defit gis jëf ju ñaaw jooju dana tiit ci loolu ba bàyyi ko waaw xale yi nag li ñaax mooy ñu xam ne ay xale lañ ñu góorgóorlu te teyit di def lu jub ndax euh, def loo xamante nii buñ ko génnee sa àdduna yàqu donc mieux vaut nga bañ ko def daal waaw nañu jàng te xam ne ay xale lañ yem place su xale aussi parce que xale day xam ne xale la jàng lañ leen sant ñu jàng daal waaw loolu daal laa leen di ñaax daal. Euh, li may conseillé daal xale yi ñi nekk soog a nekk collège ak ñoomin seen ñu gën a xoolaat daal ni ñuy doxee ci côté boobu parce que loolu daal vraiment man rafetlu ma ko. te comme xale yi toog seen kër yi di seetaan dañuy yaakaar ni lool di xew ci télé bi loolu lu jaadu la lu normal la lu ñu war di reprendre te fekk ni alors que loolu du lu du lu nice daal. pour xale yi ñu bàyyi ci xel bu baax. waaw looloo yaay ak papa yi ñoom am nañ ci responsabilité mooy sa doom bu fekkee ne day jànge école wala muy wuti xam-xam fu mu ko mën a wuti ji ba agsee ci kër gi nga dem jàngi ay leçon ci lu baax bu paree nga ne ko demal demal tëddi boo ñëwee sax ci salle bi yam muy seetaan dara loo xam ne euh, loo xam ne yéenul maanaam ndax gone gu mu mën a doon dañ koy jubanti rek ba mu jub te sunu sëriñ sëñ Tuubaa nee na yow a la am dara mënu faa jëriñ doomu aadama lu dul jub tallaahi laysa yanfa'u sasu xada inda ulumi ramsi xayru da dara mënut a jëriñ nit ci biir bàmmeel lu dul njub njub gi nag fii lay war a tàmbalee mooy boo duggee ci sa kër nga gis xale di seetaantale nga ne jàkk li muy seetaan mu leer na lii muy seetaan arrasé wu la boo lëgee ndax xale bu nekk mag ngay doon ëllëg te mag mag mi nga nar doone bu la ci sëñ Tuubaa wax nañu ci tax mis ni xaalaftuma amaral mawla la dun sixari mu kassiran lax wi xataa sur sa kibari nit dina def dara ci ci ci ci ak ndaw waaye nag bu na xool bu ndax ak mag da ko ci fekk te loolu kon yàlla doon lu baax ndax loolu ñu tàmbalee ci ndaw bu leen ci mag fekkee te kenn corrigé wu leen kenn lijjanti wu leen musiba dana am kon yaay ak baay yi nañ ci nañ leen xool bu baax jël muy loo xamante ni rek dañ ci jublu ngir xaw wi sutura ba tax na nag ñi nga xamante ni ñoo ci daal di àddu ñuy ñaax rek parents d'élèves yi ñu xoolaat bu baax a baax seen doom ana yan fowukaay wala ana lan la ñuy def bu ñu jugee ci école yi wala bu ñu nekkee ci biir école yi leneen tamit bokk na ci li nga xamante ni mooy ñu leen di bàyyi loo xel moo di nga def lépp loo xamante ni ñu la ci fekkee rek duñ la ci jam baaraam tuuma li nag moo nekkoon suñu reportage du jour ñu leen di jox dig ëllëg incha allah ci beneen sujet waaye itamit ci beneen gox.